salaam salaam salaam salaam à tous les sénégalais di leen nuyu di leen ziara di leen ñaanal jàmm waaw di def benn petit vidéo rek di def benn petit vidéo comme Sénégal dañoo seetlu ni temps yi xam nga dëwliñ dafa yokk ceeb dafa yokk lépp dafa yokk euh, dëkk bu mel ni Italie nga xamante ne actuellement euh, comment dirais-je euh, salaire minimal bi 1200 euros la 1200 euros mooy ñaata 800 000 francs CFA Sénégal. 800000 francs CFA Sénégal ma wan leen exactement ñaata la fi dawlin di jar ngeen xool actuellement litre dawlin mu ngi fiy jar 1 euro 29 xaaral ma tourné caméra bi euh, litre dawlin lii la fiy jar 1 euro 29 dawlin bi gën a yomb après ça da ngay ñëw sax fekk mu nekk en promotion bi moo gën a yomb 1 euro 19 gis bi 1 euro 19 moo gën a yomb fuuf ma wan leen plus ou moins litre meew ñaata la fiy jar meew mi ngi nii. 1 litre de lait euh, cinq 0,59 centime 0,59 centime plus ou moins ñaata la 325 francs le litre de lait 325 francs la litre de lait mi ngi nii moom lay jar fii 325 francs 1 litre de lait 1 litre d'huile ñaata mi ma leen wan léegi 1 euro 19 1 euro 19 ñaata la 700 francs matu sax 700 1 litre d'huile 700 francs di gën a yomb dafay saa da nga ñëw sax dañ koy def en promotion en 1 euro ah kilo sucre ñaata la fiy jar cinquante 59 centimes xaaral ma leen kilo suukar ñaat la fiy jar ñun bu ñuy wax ça ne pas dire que nii dañoo bëri wax mais lii lañ leen yéene te xam nañ ni actuellement ñu diriger Sénégal du ci yoon bu baax bi lañ aw moo tax ñu bëri wax mais nag wax dëgg yàlla yéene leen loo xamante ne ni ñun gëm nañu li war naa mën a nekk dëkk tugal fi nga xamante ni ñëpp foofu li ñuy fa yëpp bu ñu mënee gën a yomb suukar gën a yomb dund Sénégal euh, day doy Europe bu gënee mën a yombu dund Sénégal Sénégal nit fa yeeku sax 30 euh, mille francs weer bu dee problème la fii voilà sucre baa ngi nii cinq centime lay jar 1 kilo de sucre cinq centimes 1 kilo de sucre mu nekk ñaata mu nekk 400 euh, francs 400 francs la kilo sucre di jar ma defaat ko ngeen xool ko bu baax 1 kilo de sucre lii la fiy jar waaye 0,65 centimes muy 400 francs CFA le kilo de sucre. Euh, litre cinquante lait 59 centimes 350 moom it plus ou moins waaw kilo sucre 400 francs litre lait 350 1 litre d'huile 1 litre d'huile 1 euro 19 1 euro 19 700 francs maximum moto sax 700 600 et quelque moom lay jaar en Europe Sénégal dëkk bu ndóol boo xam nit balaa muy ku fa yeeku 30 000 50 000 60 000 sax jàmbaar nga fii les gens ki gënoon tuuti salaire day fa yeeku 1200 euros am niveau de vie bu yombee ni ak qualité boo xam ne maara day taali partagé leen ko largement ngeen xam ni euh, waxuñu pour bëri wax mais dañoo wax pour Sénégal soppeeku merci beaucoup